bu ñu xoolee responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk à niveau départemental mel ni maam say jafe na parce que man ñi ma xam yëpp xam nañ lu may wax rek lu dëggu la tey lu ma gëm la département bi xam nañ ci man loolu maam say mi ngi jàppale président Macky Sall ci ay action sociale li gën a am importance nga xam ne man ci loola laay yëngu te bu ko gisoon ci loola du ma pare pour jege ko ak li muy doon suma xarit di suma mi ngi jàppale président action sociale li mu gën a bëgg mi ngi koy jàppale ci population bi euh, belal nag aussi ñoom soxna maam say Euh, damay wax ci turu soxna maam Seye ndax confiance 100 pour cent gi nga xam ne Belal jox na ko ko 2017 bu ñu gisee élection yi moom daf ko battre ñu ñëw présidentielle à 2019 bi moom mu battre ko te bi ñu àndee ñëw fi ci campagne aussi loolu ngeen ko waxoon kon la ngeen waxoon def ngeen ko ñu ngi lancé appel nag président Macky Sall ministre Boun Abdoulaye Dione moom it ñu ngi koy sant bu baax di gis confiance ak jàppale gi nga xam ne mi ngi koy jàppale soxna maam Seye ak bëggam Touba ak bëgg wax ñu jàppale waa Belal mosuñu am audience mosuñu ñaan lenn kon nag président de la république dana fexe ba dooleel soxna maam say jàppale ko li mu bëgg a niveau départemental moom man ko am ndax gis nañu responsable yi nga xam ne ñoo fi ne waxoon naa ko euh, ci début campagne bi am na ñu jige président ñoo xam ne wax naa leen loolu nee naa leen ñii fi nekk day barina na ci ñoo xam ne li ñuy wax mënuñ ko baa boobu bu ñu ko mënee dana ma jaaxal boobu maa ngi compagnie soxna maam say di gis li muy def di dugg ci son yi li ko commencé Madiane ba 6 mu wër ñoom seeti leen génn ñëw Touba Belel dem ndindi fu ne dem na fa ci dëkk bi pour seeti leen jàppale leen waxtaan ak ñoom ñu def le tout pour jàppale président Macky Sall ba li ñu bëggoon yàlla am na ko euh, yàlla may nañu ko ba am nañ ko tey leneen li ci topp nag mooy xool nañ Touba ni mu demee ñi nga xam ne ñoo fi nekk waroon liggéey ñu jox leen ay moyens bu ñu liggéeyoon yaakaar naa li du am mais nag ku ne xam na ni population bi nag ñoom ñoo génn parce que man seetee dama te xëy na pour def récupération euh, bu ma gisee exact nit ñi ni ñuy génnee dangay xam ne ñii li leen yëkkati kenn xamul lu mu doon kon amul benn responsable réew mi wala beneen parti wala benn coalition boo xam ni fexe ba li APR liggéey nga ne ñëw da nga loolu non loolu moom kenn d'accordu ci tey responsable yi nga xam ne ñoo fi nekk wax nañ lu mel noonu. Euh, mandat bi mu liggéey te bàyyi population bi ñoom li nga xam ne moom mu leen dese muy ay wax ñoom ñu wax ñooñ daal lañu koy ñaan mu xaw mu jéggale nag vraiment bañ a topp yenn façon nit yi ndax jëruñ ko dañ koy yàqal rek. mu bàyyi leen ñu nekk ci la ñu war a nekk moom itam liggéey. ndax am na la feneen fu ko réew mi xaar gis nañ yéene ji nga xam ne am na ko ci Touba ak feneen ci Sénégal ñu bàyyi ko mu àggale yéene jooju loolu daal la ñuy wax président de la république yàlla may ko jàmm mu àggale mandat bi ci sedd guyu nag te it waa Touba moom xam nañ ñu ngi ci gën a am soxna maam say moom mi ngi ci gën a am incha allah rabbi li may wax daal mooy li ma waxoon rek parce daal daal nga ne ay a ngi dëkk Touba bi ay góor yu ko dul wor ay gor yoo xam ne nii depuis 2007 ba ñu ànd moom te bi ñu commencé ànd ak moom ba léegi mooy gagné Touba Belel Belel tamit nag jur xem dëkk bu mag la bari na lu fi manqué trop ndax euh, mos ñoo demandé leen DER bi li muy bari bari Touba ña ko doon jël ñun waa Belel bokkuñ ci DER duggul dara benn financement duggul dara teewa yi ñu doon laaj benn teew bi mën naa jël sama xaalis jënd teewa jox leen ko masinol maa jël sama jënd masinol jox leen ko kon nag su ma sañoon nit ki bu la dee jàppale ba jox la ndam ndam nga gees ko parce que moo xam ne benn sëñ bu fii dem ca pare ba naan maa joxe ndigal benn sëñ jox benn digal ñun politiciens yi ba gañe biir dafa di ndax euh, élection wii noo ba dañ woon wii moo fi gañe ban ko waxee boobu maa ngi indi maa ngi ci opposé moo fi gañe woon konoon na président xam ne ñu politicien ñoo nokki beral ñooy wax ak moom benn kilifa bu dëkk jom na ko beral lii na ko jël teg fee te jàppale politicien yi te jàpp dooleel na beral nag moom nañu jàppale dooleel ñu ndax am leen dugg beral du deer du ay manqué na ay taux parce que baa ngi nii li manqué beral bari na booba tey maa ngi koy jooytu li fi ñëw rek sama may laa ko laa ko di ko sant baax na di ko gërëm di ko fii ci ndam ci ndam ni mu am di ko sant xam ne moom kenn ku ne xam ne taalibi sëñ Touba ndax fii sëñ Touba mooy fal dañ ne Bamba fépp fépp àddina Sénégal foofu dem Bamba am na fay taalibi Bamba fépp la ndax kon nag bu ne taalibi yoo ko fal taalibi yi fal ñu kon fal na taalibi yoo ko fal te suñ fii tamit providence jox sëñ Touba mooy jox na sëñ Touba jox na ndam te defal nañu loo xam tamit kenn mënu koo fay ndax gouvernement ci gouvernement am ci doole ñëpp ay taalibi la ministre intérieur Aly Ngouille Ndiaye ñu ko sant ko gërëm taalibi sëñ Touba la Mouhamed Abdoulaye Dione kenn xam ne du taalibi 2018 taalibi 2019 dafa juddoo ci yoon wi taalibi sëñ Bamba fi dee ñëw ñu ko teg yeen di renuy métti sëriñ sépp la métti ñu sant maam Thierno Dieng taal bi suñu bi ñu maa ngi taal bi suñu bi suñu tubaab gouvernement bi jeex sant ko jënd jàppale ko mën a tey ji laa gën a jël sama engagement li bag ñu yokk ñu bëri wate bele yi te jàpp ñu amul étude am kayit du jur du ñu am carte d'identité buñ ko defee rek bu soobee suñu tam mois bi ñu jëm dañ gis ci benn kenn mu sa